Dans le monde de la Bible, le mot frère est d'un usage fréquent. Dans ce que nous faisons au plus petit de cela. À suivre le frère dans ce qu'il peut commettre. Oui, le ballon de l'Ébal, de le frère de nous le s'assurer. Nous le ferons. de nous, c'est le tey mercredi décembre ñoo ngi fii ci euh, paroisse Saint-Paul Grand Yoff nekk ak abbé Alphonse abbé tey nekk mercredi décembre premier jour du carême mercredi décembre lan lay firnde ci diine catholique. waaw mercredi euh, décembre njëkk moo di tàmbalewu kooru kerceen ci àllarbay doomu taal bi la ñuy tàmbalee la dugg ci li di suñu koor fas yéene cee wéy nag ba ca paggu sell ga muy lu toll ni diiru ñeent fukki fan ki nga xamante ni dañooy beru maanaam nekk ci xelu ak borom bi yéesu tuub dëgg te delloo si suñuy xel ci yàlla baay borom kattan looloo waral sax mercredi des cendres am solo ndaxte solo su mercredi de cendres bi moom mooy euh, li nga xamante ni dañoo cee oo ñu tuub ci dëgg dellu ci ci borom bi suñu yàlla boo dégloo sax kàddu yi nga xamante ni moom la ñuy ekkati ci bés gi ba ñuy diw doomu taal bi dañ cey naan ba ca njëkk a fàttalikul ne pënd nga suuf nga maanaam te ci pënd ngay dellu ñaareelu kàddu ga di naan waaw naam nanga nga tuub te nangu euh, églé gu neex gi maanaam kàddu yàlla loolu nag euh, di firndel bu am solo boo xamante ne ca bël ba la cosaanoo yàgg na ca jamono yu ancien testament ca yawur ya lii lee nga xamante ni moo doon firndeel tuub ca buur ya wala ca yonente ya moo nekkoon toog ci doomu taal bi wala boog sangoor doomu taal bi wala toog ci doomu taal bi sangoog benn mbàjj bu ñu doon tuddee silis loolu mu réer na ci jamono ji ñu nekk tey waaye ca jamono ca njëkk ba noonee la woon di wone nag ne wax dëgg ñu ngi li nga xamante ni mooy njombe gi di baakaaru askan bi di baakaar gi ñu mën a def ñun ci suñu bopp di koy naqarlu nag ngir gëna mëna mën ci mbalem bi ñu borom bi yéene ndaxte yàlla ak baaxaayam ak katanam daf ñuy baal suñu bàkkaar bu fokk fi nga jóge ak fu ngay dellu moo lay dell mooy delloo sa xel si yàlla pour yow sa jëfin sur terre maanaam pénitence maanaam day delloo sa xel si yàlla yow fi nga jóge affaire yooyu man moom dama koy def ak mbégte parce que premier jour la muy muy commencé 40 jours yi mbégte lay doon si man ak ak engagement bu garaaw parce que premier jour bi mooy annoncé sa sa sa carême nu mu war a mun a dem. carême bi moom yàgg nañ ko quoi yàgg nañ ko def comme tey mercredi cendre la mooy wane juste entame carême bi ñu fas yéene ci dugg si ak jàmm def ko carême bu jaar yoon 40 jours de jeûne prière et partage loolu la ñu wax comme donc loolu lañ ko fas yéene dugg ak prière surtout ñaanal yàlla sunu borom bi mu def jàmm si ñun ñëpp àdduna bi yëpp la ñuy wax ñaan rek moo am solo te si carême bi moom ñaan lañ ci ña lañ ci dugg suuf. yow en tant que ndaw nan nga fas ne taxawee bu quart de jour yi jeex. Euh, comme comme tu l'as bien dit rek parce que déjà carême bi nekkul nekkul nekkul bañ a bañ a lekk nekkul bañ a naan parce que boo xoolee gars yi dañuy ne souvent suñu koor dafa métti métti na méttiwul parce que fii dara yombul mais suñu koor moo gën a man personnellement si man moo gën a yomb quoi parce que nekkul nga privé sa bopp lekk wala naan.

yow est-ce que mën nga ci indi quelque leeral ci par rapport ak euh, kooru chrétien nan lay demee. waaw naam euh, koor gi am na ñett taxawaay yoo xamante ni bépp chrétien war na ko taxawee dégg nañ ko sax ci l'évangile bi taxawaay bu jiitu bi moom mooy tuub dëgg te ñaan borom bi suñu yàlla ñaan gi. nga xamante ni nag ñaan googu euh, ñu ku def ni ki mii kër yi nga xamante ni ni ko l'évangile bi di waxee dañoo namm te sopp di taxaw ci ñaanukaay yi. wala ci sélébé yoon yi ngir nit ñi gis leen ci seen bopp loolu ngistal la loolu yàlla suñu borom soxlawu ko yàlla borom bi soxla moo di nga wéet ci sa wéetaay ak moom daal ko bëkk néegu ñaan ko ñaareelu taxawaay gi nag moom mooy itamit lii lee nga xamante ni moo di saraxe miskin yi jàppale jeetuur gi bàyyoo gi loolu dafa bokk ci xar kanamu jàngu bi moo waral Caritas ngeen gis Caritas ak liggéeyam moo waral poste de santé privé catholique yi moo waral njàngale gi nga xamante ni ñu ngi koy jàngale ngir mën a siwal lii leen di coofeel gi ñu war ci doomu aadama jottali miskin bi new di doole gi li war ba moom ci boppam mën a gis boppam ni ko borom bi suñu yàlla bëggee moo tax euh, saraxe boobu am lu ama am solo ci suñu diine ñun ba tax na am na diibeer boo xamante ni spécial la dañ ko jagleel euh, diibeeru Caritas ci waxtu googu la ñuy ñaan paroisse yi nekk ci biir diocèse bi yëpp ba ci biir diocèse yi law ci biir Sénégal yëpp ngir ñu amal addiya goo xamante ni dañ koy jëbleel ci liggéeyu Caritas bi su ko defee ñuy jàppale miskin yi kon loolu itamit dañoo war a moytandiku ba ñuy def lu baax di saraxe di joxe ñu moytandiku mu doon puuxare ñu moytandiku mu doon gistal ñi nga xamante ni noonu la ko yéefar yeeg mi kër di koy defee ndaxte dañoo namm di toog ci célébé yoon yi ba ñu gis leen ñu gis ku nekk gis lu mu lu muy def bu ko defee borom bi nee ne su boobaa am na yoolam am na ndàmpaayam kon booy saraxee yow ci sa bopp na sa loxo càmmoñ gilee et kumpaw lii say loxo ndey door di joxe ngir borom bi gis li nga def ci kumpa dal na ko delloo ñetteelu taxawaay bi mooy koor gi ci boppam nag. comme ni ko digalee ci mandement de carême bi rek weeru koor doon li nga xamante ne

ñu nañ ko duggee ci alléluia te jeexalee ko aussi ci alléluia. koor gi ci boppam euh, dafa di maandu maandu ci lekk xawlu benn yoon ci bés maanaam ñun kooru kerceen amuñu ndogu amuñu xëdd benn yoon ngay lekk ci bés gi yaa xam subala la yaa xam midi yaa xam ca guddi benn yoon googu moom lañ la sant. nga xewlu ci bés gi su ko weesoo xam na ñu ne am na ñoo xamante ni seen doole tollul noonu ba may leen ñu mën a muñ ñetti xewlu ñuy xewlu ay bés ni ki jabet yi ñi ki ñi amee feebar yu leen tere loolu ñooñee may nañ leen sax ñu mën a jëfandiku as tuut li yaram gi soxla ngir mën a téye yaram gi ci wërgu yaramam lu weesu loolu nag lu ko mooy moo di war na bépp taalibe chrétien bu am diggante fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom fukki at ak juróom-ñeent de dix-huit ans à cinquante-neuf ans koor obligatoire la wareef la ci mbindeef gi ci taalibe chrétien bi ko kattanam may bokk na ci nag ñu fàttaliku ne am na ñoo xamante ne ñu ngi war ba soo bés te teyuñu ko du seen coobare du seen bëgg du seen bëgg-bëgg seen ñàkk mën-mën moo waral

te bañ a dugg ci lu suñu yoon nekkul moo di fexe ba suñu dund mel méngoo ak li ñu borom bi suñu yàlla sàkkee ca njëlbéen ga ndax ba muy sàkk doomu aadama def ko sàkk mu doon lu baax iblis nag moo dugg si àddina ba yàq diggante yàlla ak doomu aadama loolooy bàkkaar gi iblis moom moo ñëw féewaloo ba tax tey suñu bopp mën nañu gis suñu morom daal di ko sip wala daal di ko teg ay daan suñu njiiti monseigneur yi dafa am benn euh, téere bu am solo bu ñu xaatim

dafa am luñu ñu lu am solo mu nañu ñun ñëpp ay mbokk lañu nous sommes tous frères ñu ci tudd nak lu yéme lu am solo lo xamantene war nañu yé ci jamono gi ñu dund fan yi ñu wessu rek ñun ñëpp ay mbokk lañu ci yalla lañu joggé ay doomi aadama lañu donte mën nañu utaat le diiné donte mën nañu utaat le xéet donte mën nañu utaat le sax gis-gis ngëm-ngëm ñun ñëpp ay doomu aadama lañu té fañu joggé fa lañuy ñuy ño bokk fi ñu jóge ñoo bokk fa ñu jëm ñun muy chrétien yi muy waa lislaam muy waa ñi nga xamante ni ñoo bokk ci diinay maam yi ñun ñëpp dañoo bokk benn géeñoo ca aadama bi nga xamante ni moo ñu jiitu fii ñun ñëpp te yàlla sàkk ko kon su ko defee nañuy sellal di rafetal diggante yi ni ñu ko ba sa xame ñuy saafante di yéenante jàmm ni ko suñu njiit monseigneur yi di koy santaane maa ngi oo surtout jeunes yi ñu gën a sellal waxtu gile ndaxte waxtu gile waxtu tuub dëgg la. merci jërë